mbokk yi xarit yu seen njëriñ TV bisimilah ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci yëglekaay yu tey jili audience bi amoo démb ci palais de la république njiitu réew mi Macky Sall doon recevoir ñii di candidat rukale yi Sud Quotidien ak yeneen i quotidien yu bari tey ji ci la ñu xëyee mu ñëwee ci Sud Quotidien ñoom nag ñuy wax lu jëm ci secret d'une audience maanaam daal lépp secret la amul lenn lu fa tukkee ci ay réponses yi nga xam ne ñoom candidat rukale yi war nañ koo jot foofule ci njiitu ba tey ci suñuy confrère ña nga ñuy wax ni bile bëri woon na nit de waaw ndaxte lu toll ci eh, ñeent fukki candidat ak juróom-ñeent ñoo fa teewoon wante daal gisuñ ca lenn lu ca sotti eh. ci boobule ndaje ba tey ci diggante njiitu réew mi ak ñi tuddee le collectif des candidats recalés enquête quotidien ma nga ca ñëwaat ñoom sax nee nañu malaise nag moo fa amoon maanaam daal ñu ci bëri ñu fa nekkoon dañoo gêné woon lool ci biir ku eh, jege quotidien boobule ma ngay préciser di wax ni ñoom recalés yi la ñu bëgg nag moo di régler ay failles yi nga xam ni daal gis nañ ko mu nekk ci processus électoral électorale bu ñu sukkandikoo ba tey ci suñu ay confrères tey ji ñi ngay sàkku nag ngir ñu may liberté provisoire wala sax une liberté kii di Bassirou Diomaye Faye niñ ko may nag mu feex ngir mu mën dem battre campagne euh, ci noonu itam ñoom collectif bi ña ngay bëgg di sàkku ci njiitu réew mi ngeen nag ñu xoolaat lu jëm ci dysfonctionnement yi nga xam ne moo nekk euh, ci bi le fichier électoral te Vox Populi ñoom ña nga ñuy wax ni euh, lu jëm ci wàllu nag reporté ay élection waxuñu ko woon de déedéet waxtaane wu ko fa démb foofu la ci palais de la république ak lu ci am euh, situation bi ak nu mu mën élection présidentielle bile dina tax nak ñu euh, rek euh, respecté wala sax ñu xol ñan ñoo na a respecté suñu calendrier électoral l'olé di kàddu Cheikh Bamba Dièye gannaaw ba ñu noppé ci bobu les rencontres ak nit l'observateur mom ma nga ñi won ay détails ci li ñu parlotte sans intérêt ñom dal suñu confrères gis nañu né ndaje bi amoon dem foofu la palais de la république amul ben intérêt sax lépp nak kan ci nara bénéficié wu di njiitu réew mi Macky Sall moom nag moom moo gagné démb dëggantaan ci ndaje bi nga xam ne daal ñoom 49 candidat rukale yi demoon nañu wuy suñu confrère yi nga ñuy wax itam lu jëm ci exigence eh, yi nga xam ni ñoom eh, candidat yi teg nañ ko ak itam limite ya nga xam ni engagement eh, yu président Macky Sall moom la wane moom njiitu réew mi am na la mu wane ni lii la man leneen nag nee na mënu ca lenn nekkoon nag ndaje ba nga xam ne daal mënees nañu wax ni Macky Sall moo ci gagné bu ñu sukkandikoo ci wàllu observateur moom Macky moom lay nee nañ nag déglu na de waaw waaw may nañ leen nopp bu baax bi wante itam la nga xam ne daal moom la war a indi ci réponse de côté ci suñu confrère yu témoin ñoom sax na ngay dem di laajte waa ñii ñoom lan lañ wut foofu la ci palais de la république ndaxte galère dëgg nag la ñu fa daj waaw galère kott la ñu nag suñu euh, confrère yu témoin yi léegi gis nañu ne ndaje bi li amul benn sens ñoom sax dem nañu bay wax ni lu jëm ci wàllu parti démocratique sénégalais euh, ndax lam fa teewoon moo tax nag malaise bi am ah loolee tam beneen question la bés bi la jour moom gis na ni ça ne joue pas collectif maanaam daal ci biir kujje gi gis nañu daal ku ci nekk daal da nga fàq jëmale ci sa boor amul benn solidarité bu ñu nemmee ko ci ñoom ci seen diggante parti démocratique sénégalais ñëw na nag indi malaise bi ci biir groupe bi bugan Gueye Dany moom mi ngi wër rek di tiire ci kii di Mimi Touré itam ñu gis na daal communication de défaite dëgg la ñu gis ci biir camp opposition bi wala sax ci camp présidentiel ci noonu la ñuy dem wax euh, lu jëm ci démocratique sénégalais direct ñu ma nga ñu yëgal ni ci biir parti démocratique sénégalais sénégalais Karim la rek wala lenn budul Karim kenn du Karim ou le déluge noné la ko waxé suñu natango yi ña ngay laaj tey ji wala sax di wax ni opinion internationale beeg nationale bép ñom dañu japp ni dal Karim Wade mom dal jëlu au sérieux bi la élection présidentielle waaw jappé ko au sérieux de lolé tax na rek bobu batay tey kenn ko gis fi ci réew mi tam lutax euh, deful comme ni par chef def manam out ay plan B ngir rek mom bu jàllul keneen mën a jàll loolee question la ba nga xam suñu natango yu direct news ña ngi ko doon laajte ñoom sax dem dañu bay wax ne tey jii problème bi ci biir parti démocratique sénégalais lépp Karim la moom kot waa parti démocratique sénégalais ñu ngi leen fekkaat foofu le ci bi ngay intéressé ci lu jëm ci commission d'enquête parlementaire ba nga xam ni door nañ ko niki démb ak ñii di député yu PDS yi ñoom nag ña nga ñuy yëgal nii tey jii bureau de l'Assemblée nationale dina rek réunir en mode fast track nag hyper fast ne moom Karim Meïssa Wade def na ko ngir nag ñu mun koo delloowaat ci bile langue politique gi réew mi ma nga ñuy wax nag tey jii kan moo nekk nag di la nouvelle marraine maanaam la ko les di ko waxtaanee lu jëm ci Coupe d'Afrique des Nations foofu lee ci Côte d'Ivoire ña nga ñuy xamal ne daal le suñu réew mi ah, les sénégalais manam les lions de la teranga réew voir lañu 8 am nak ah, ci 8e de finale yi lépp dem la leer foofule ah, ci Yamoussoukro lañ ko nara jonganté jongante suñu gaynde yi ñu nara nak utiliser lu toll ci 20 joueurs bu ñu batay ci les échos tey ji sax na nga wax ni ñun meilleure défense meilleure attaque benn bu kott lañ encaissé ba ñu daroy ba léegi wante ah attention de nañu moytandiku nag ay euh, éléphant yu nar a yeew waaw ndaxte nag yëf yi dafa mel ni boo gën a dem muy gën a neex sa quotidien moom la mu wax itam mu ngi ni wax ni euh, les du Sénégal tey jii font peur en Côte d'Ivoire dëgg la de suñu gaynde yi nag ñëpp leen ragal foofu la ci Côte d'Ivoire wante nag taxul ñu war a moytu nag tey jii suñu nattangoo ña ngay laajte di wax ni moom Aliou Cissé naka la nar a def ba gérer équipe ba nga xam ne am na ko ci vingt joueurs foofu la ci Yamoussoukro ngir ñu mën a tenir tête les Ivoiriens laataa ñu jeexal nag daañu wax lu jëm itam ci classement ñaar fukki réew yeeg benn ya nga xam ni ñoom ñooy a pauvre ci euh, Afrique ah, suñu réew mi gën nañ ko ci liste boobu lay waaw dëgg la loolu Dakar Times moo ko wax ah, tey a mënees nañoo jàpp ne daal Sénégal bokkatul ci réew yi nga xam ne ñoo gën a ndool ci dënduk Afrique gi wala sax ci Afrique wërngal kër libération moom tey dafa xëy yi nga xam ni ki ñaw jële foofu la ci Seras ah, di Abdou Mbaye ah, wane na ko wala sax wax na ko ci kanam enquêteurs yi ñu fàttali ne Abdou Mbaye moom moo rek ren di woon kii di Abdou Diaw ah, ngir wàllum jalousie maanaam fiiraanga kott tax daal mu def jëf ci ñaw jële suñu confrères nag tey ji moom la xëyee dañuy wax histoire bi nga xam ne daal moo jëmoon ci wàllu téléphone bu bon bi nga xam ne moom la ko jaayoon loolee moo kott li feeñ ci li nga xam ne moom la ñuy gis ci mbir moom lay ndaxte bu ñu sukkandikoo ci wàllu libération kanamu enquêteurs yi nee daal dafa doon jàpp ni moom kii di Abdou Diaw di dem si yàlla ji dafa doon daal am ay relation amoureuse yi nga xam ne daal da ko doon nëbb ak kii di soxna loolu tax nag moom mu jàppal ko en gu rëy rëy ba tax rek mu def jëf ji nga xam ne def na ko maanaam ci samedi ji ñu ngi ñuy xamal ni ki la ko waxoon ne yow mii boo ma moytuwal dinaa la rey te nag calcine gi la def lu ni mel ba tey buñ sukkandikoo sax ci waa ña nga ñuy wax ni autopsie bi ma ngay wane ni Abdou Mbaye daal dëgg dëgg dafa fiiroon ba tax na rek da ko rendi complètement ak kii di Abdou Diaw yàlla na ko yàlla yaram ci fira ba mun a yóbbu jàmm bi ci lu ne mu ngoog ñu yendoog jàmm